mbokk yi jërë ngeen jëf seen ànd ak télévision Futurs média ni ñu leen ko waxee xibaaru marax yi ñu tàmbali ko. ak xibaaru tiis gi senegal yeewoo ak génnub àddina amadu Makhtar Mbow def na ko ci talaata ji yamook euh, ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru septembre mi ngi amoon téeméer ak ñetti at nekkoon fi ay jamono directeur général bu UNESCO waaye ba mu fa bàyyeekoo génnewul loxoom benn yoon ci dund ni askan wi niki it ci lang politique bi yu bëri yu dëng moom moo ko joyanti ñu ànd ceek miineel ak jëmm ji tëddu Fat Bintou Konté ci leeral Mouhamadou Makhtar Mbour dafa wàññiku ci talaata gi lee gannaaw ba mu amee lu toll ci téeméeri at ak ñett mu ngi judd fii ci Ndakaaru ci atum 1921 mi ngi judd fii ci Ndakaaru ci atum 1921 moom professeur Amadou Makhtar Mbow mi ngi nag tàmbalee li nga xam ne moom moo ni njàngam ci école élémentaire bi ñuy wax école régionale bu Louga gannaaw nag bi mu jàngee ba defi étude supérieure am fee ca Sorbonne dafa dellu si waat fii ci Sénégal di jàngalee li nga xam ne moo di histoire ak géographie ba atum 1966 lycée bu Faidherbe Faidherbe ak ma ngi ko doon jàngale fii lycée bu Faidherbe bu Saint-Louis ak école normale supérieure fii ci Sénégal nag lii nga xam ne moom moo di njàngale ak jàngal ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci dëkk dëkkaan yi nekkoon na ab xeex bu metti bu mu daan xeex ba tax ni sax balaa ñoo dugg ci li nga xam ne moom moo di indépendance tubaab yi dénkoon nañ ko lu ñuy wax la service de l'éducation de base moom Amadou Mokhtar Mbow nag ca mujjantal ga sax ba ñu duggee ci indépendance ci atum 1966 dañ ko dénk poste bi di ministre de l'éducation nationale 66 ba 68 mujjantal gi mu nekk li nga xam ne moo di ministre de la culture et de la jeunesse nekkoon na it député fee nga xam ne moom moo di assemblée nationale. ñu toog ay diir ñu tabb ko fee nga xam ne moom moo di ca boppub UNESCO. mu di nag loo xam ne ak sag gu rëy la moom mi nga xam ne moo nekk juróom-ñaareelu directeur de l'organisation des nations unies pour l'éducation la science et la culture mu jël nag li nga xam ne moom moo di àddinaam consacré ko ci lii ñuy wax le triomphe des valeurs humanistes maanaam daal jàppale bépp doomu adama mu di homme multidimensionnel ñëpp la fi nekkal désintéressé boole ci nag discret moom mii nag bëggul woon sax ñuy wax li nga xam ne moom moo di ay jaar-jaaram wala wala mën-mënam wante nag nit ki moo di toll homme de culture humaniste leader éclairé mu nekkit koo xam ne askan wi yëpp ñoo ko soxla woon Amadou Mahtar Mbow nekk na ko xam ne ci giiru dundam rek am na lu toll ci 42 titres de docteur honoris causa mu di citoyen boo xam ne dafa engagé woon ba tax ni sax na gannaaw ban ko di assises yi dafa nangu woon naam mag la woon wante li ñuy wax rek toujours prêt à servir li nga xam ne moom moo di dëkkam ba tax nag état d'esprit boobu sax nag moom moo tax ñu def ko wala mu war a nekk koo xam ne c'est un immortel ku dul mës a ci askan wi li Fat Bintou Konté la nga wax kàddu seede yi tukkee ci Mignane Diouf coordonnateur forum social Sénégal indi ay euh, kàddu seede ñu teewlu ci Amadou Mahtar Mbow moomu dëddu Amadou Mokhtar Mbow di doon ko xamante ni guy gu rëy la woon guy goo xamante ni li mu liggéey ci Sénégal ak ci Afrique ak ci àdduna gi depuis bi mu nekkee xaleel di jàng ba yegg ci armée française nekk itam ki nga xamante ni daanaka mën nañu wax ne le premier technicien d'aviation du Sénégal c'est Amadou Mokhtar Mbow xëy na loolu ñu bari xamuñu ko mu jógee foofu dellusiwaat fii ci Sénégal bokk ci gouvernement Senghor di fi liggéey lu rafet ci wàllu éducation defe naa ne yemul foofu rek ndax bi nga xamante ni itam génn na UNESCO ci anam yi nga xamante ne xam nañ dañ ko doon xeex foofu defar dellusiwaat fii ci Afrique di xalaat di gunge politiciens yaa ngi fàttaliku bi ñu commencé am alternance 2000 Amadou Mokhtar Mbow malgré âge bi état de santé taxul woon mu toog këram di liir ay journaux wala di liir kaamil da doon xalal politiciens yi di accompagner société civile. di bokk itam fépp foo xamante ni waxtaan am na fa pour lu gën a mën a jëmale Sénégal kanam defe naa ni xam nga bu baax nii amadu Mokhtar boobu moo présidé woon commission bi doon xalaat te nan la ñuy réformer li nga xamante ni mooy sunu institution. rapport boobu ba tey li fa nekk ak li mu joxe xëy na que Sénégal bu ko appliqué woon wala yeneen def Afrique yi buñ ci inspiré woon mën na am ci propositions yi mu defoon ak ñi mu àndaloon. ñu gën a am doxalin bu gën a baax bu gën a rafet moo tax ñu yaakaar ni moom Amady Mahtar Mbow Sénégal war na ko delloo njukkal gu rëy ñu wax ci wàllu dundinu askan week euh, koom ak euh, FMI mi jamono ji teggat Sénégal ak euh, bor bi nees euh, def ba lijjanti ko boru Sénégal bi mu jàpp ne diis na euh, waaye ci ñoo xam ni seen xam daa màcc ci wàll woowu ndax dañu war a wàññi subvention yi li ñuy wax rocc ko ci produit pétroliers yi niki ñoomin seen Euh, am nañ ci gis-gis yoo xam ni buñ ko defee ci seen euh, ñoom ay pexe yi ñu xalaat dina gën a ñoŋ ci wàllu koomu Sénégal bor bi it euh, gën a wàññeeku Habib fay ci leeral. délégation bu fonds monétaire international nemmeeku gi mu def fii ci Sénégal ba tey ña nga cay wax waa FMI gis ne yokku teg komuk réew mi dafa dellu ginnaaw ci 6 pour cent ci atum 2024 jóge ci 7 point 1 pour cent ci weeru juin loole moom moytuwul des ne jur guuta moom mi xam-xamam ci lool ci wàllum finance publique gis na ñu xool mbir facteur conjoncturel yi ak structurel yi loolu lu mu jur mooy recette yi nga xamante ne état moom lay yoon muy l'impôt dafa wàññeeku li ñu mën a jàpp mooy économie bi ni mu doon doxee wàññeeku na kon urgence mooy nan lañ koy stimuler ba nga xamante ne fu mu nekkoon mu ne fa wala mu weesu ko ndax loolu mooy jëriñu Sénégal moom Malène Amadou Niang gis ni dina metti loor ngir ñu mën a wàññi niveau dépense état wu Sénégal ci jamono ji ñu toll. dette publique bi dafa dem dafa dépassé yi nga xamante ne moom lañ ñu may UEMOA muy 70 pour cent. muy wane ni li ñu àbb bëri na tey bépp koppar bu ñuy àbb dañu war a xool te lañ koy àbbee ndax soxla nañ ko buñ ko soxlaa ndax taux biñ koy amee baax na ndax durée biñ koy amee baax na. ci jamono joo xamante nit crise yi mënta ñàkk faw rek ñu fàggandiku ci nii. kon dañuy wàññi li ñuy àbb ñi war a fay impôt fay l'impôt waaye état tamit. jàppale citoyen yi jàppale askan wi ba nga xamante ne li ñuy fay ci lépp dañ ko gis ci ay investissement yoo xamante ne yokkute lay jur ci askan wi. moom mu gis ne réew senegal jamono jii li ñu duppee ay borom dafa jéggi dayo romb na sax lim nga ñu ko may ngir ñu mën a suqalikuwaat faaw rek ñu xoolaat na yeneen i tërëlin yu ñuy am askan wi ñuy mën di dugal seen xaalis ci biir réew mi ngir l'état wu Sénégal mën cee sukkandiku mën a dajale. luy am solo la ci koomuk réew mi ñu àddu jëmale ci wàllu jàng ak euh, jàngale coordination élèves yi xëyee ca Kër Massar Sud yaakaar bu tas lañu am ci seen maire yi ndax ci seeni xibaar voté loon nañ budget bi lu toll ci juróom-ñaari million ci suñuy koppar jagleeloon ko jàngale bi waaye ba léegi gisuñu ci dara furaas te jamono ji ñu ngi am ay jafe-jafe dëkkuwaay ca université yi ñu nekk ak élèves yi xëyee foofu ci leeral Aminata Ba Ousmane Balde ñu teewlu. coordination bi ëmb élèves ak sud di xamle ni nag lu tolloog ñaari at jotuñoo am benn subvention bu jóge ci mairie bi di ñaawlu bi la situation. depuis bu ñu créé coordination ba léegi léegi ñu am cinq ans jusqu'à présent ñoo daw ci ginnaaw mairie bi mais nanguñoo sax bu fekkente ne sax au moins da nga gis maire bi mu toog waxtaan ak yow mais rarement nga koy gis. ñun li ñu bëgg mooy municipalité bu Kër Massar sud mu respecté étudiants yu nekk Kër sud. Aboussi bu loolu moom daf man daf ñoo neew ni que c'était di pour les étudiants mais jusqu'à présent de bu ñu ko voté ba léegi ñu ko xamuñu nag lan moo xew. gàllankoor yu mu jur coordination bu Kër Massar Sud ba fii amul benn logement boo xamante ne jagleel na ko ay étudiants ci dëkk yi nga xamante ni moo am université yi. du ma wax sax ñi nga xam ne ñoo nekk Dakar mais ñi nga xam ñoo nekk ci région yi nga xam ne xamuñu fa kenn ñoom souvent dañuy am problème boobu noonu dañuy am problème mu logement. ndax récemment rek euh, ñi nga xam ñoo nekkoon euh, Fatick euh, ak Ziguinchor amoon nañ problème logement ndax dañ leen doon génne. taux de réussite élèves yi ci baccalauréat ak mention yi nag daal di wàññeeku ñeen fukk ak juróom-ñaari élèves dong le mouvement Massawa daal di récompensé at bii. mention yi ñu amoon daaw daaw ci mention très bien yi jot nañ see primé ñett mais ren au niveau de la commune benn kese lañu am mention bien yi daaw moom primé nañ lu ëpp dix. mais ren ñoo ngi nii on est on est six personnes la ñu am ce qui veut dire que taux bi wax dëgg yàlla moom wàcc na bu baax a baax a baax. dafa nekkoon prison waaye ren waroon na gën yëngatu ci mbir mi c'est que approche bi ñu leen war def amuñu ko donc ñu ñoo ngi kiy ñaan mu gën a rapproché wu si xale yi éducation mu gën ko taxawlu mais na dugg ci école yi waxtaan ak xale yi xool ñi amul ñi am ñi am ñi am kaye ñi amul kay ñu nga xamante ni mën na leen subventionné mën na leen jàppale te loolu ci lan lay commencé mooy jàppale étudiants yi. mouvement Massarowa ak coordination bi ëmb élèves ak étudiants yu Kër Massar Sud di woo nag maire bi Mouhamed Bilal Diatta mu dugal wàllub njàng mekk njàngale mi ci ay priorité ba léegi ci wàllu jàngale bi jëwriñ ji yor wàllu pàcc boobu mi ngi waajal ubbite école bi rentrée scolaire 2024 euh, Moustapha Guirassi euh, di amal ay CRS euh, conseil régionaux spéciaux yoo xam ni bu njëkk bi mi ngi ko amalee maatam foofu seen jafe-jafe mooy jàngalekat yu bëri dañuy bàyyi dem te kenn du leen remplacer nee na dina ci indi saafara ñu teewlu Ali Bandel ñoo ci leeral ay dogal yu am solo yi ñu namm jël ngir kon mën a saafara ñàkkum jàngalekat ci diwaanu Matam xibaar la bu gën a fës mu ñeel ministre bi yore wàllu njàngale mi ci biir réewum Sénégal Moustapha Maba Guirassy tànn diwaanu Matam ngir tàmbali tournée bi mu namm amal ci mboolem gox yi ci biir réew mi war faa jiite ay services mu jagleel ko ndorteelu année scolaire bi ñu dëgmal. ministre de l'éducation bi nag daal di siiwal wax askan wi yéene bi nga xamante ni kilifa yu bees yi bopp réew mi amee ngir kon soppi xar kanamu njàng ak njàngale mi ci biir réew mi. wante bi ci gën a fës mooy déficit enseignant euh, dafay am départ trop euh, xëy na éloignement bi la xëy na tamit conditions yi la mais yooyu euh, premier ministre instruction yi ñu jox mooy ñu saafara ko te sunu présence fii tànn ko ci parmi d'autres régions am na lu muy tekki tamit donc ci li muy tekki mooy taxaw bu baax. régler question wu déficit googu au-delà de Matam tamit ça va être aussi euh, régler question boobu par rapport ak ñu bëri ñu nekk ci périphérie niveau départ yi élevé bu baax a baax. xanaa kon ngir wane yoon wi moo tax ba Moustapha Maba Guirassy xamal askanu Matam ne ci ndigalu njiitalu gouvernement bi di premier ministre Ousmane Sonko nam nañu jël lépp luy yëngu-yëngu mu ñeel journée seetal suñu réew ñu daal di orienté mbir yëpp ci biir l'école yi. tënk nañu lu bëri. te yaakaar naa ni rentrée bi incha allah ak nu ñu waxtaanee ni concertation bi on va vers une rentrée incha allah bu apaisée mais une rentrée aussi boo xam ni élèves yi nañu retrouver euh, de bonnes conditions pour mën a entamer donc année scolaire bi. Euh, premier ministre euh, am na conseil boo xam ni tenir na ko yàggul ci set setal bii di ñëw cet setal sunu réew moom ni mu ko déjee mooy ñu setal sunu école. kon c' est occasion la tamit pour renforcer présence su acteurs yi autour de lécole école pour ñu jàppale donc école mu réussir donc rentrée boobu. ci CRD spécial bii njëkk nag ñeel waajtaayu ubbiteefu l'école bi ministre bi yore wàllu éducation daal dina na rafetlu lool jaajëfal ñu yore académie bu maatam de jàpp na ni donte jafe-jafe yi bëri na waaye ci examen fin d'année yi maatam ma ngay wëy di nekk ci kanam mu di ay performance yu muy maintenir Ali bu dee ca Matam jàngalekat euh, yu manqué la ñuy jooy école Idrissa Diop nekk sa cees élèves ya parents d'élèves ak euh, ñay jàngale la ñuy jooy mooy na mu màggetee 1903 lañ ko tabax jot na ñu defaraat ko ndax dañuy ragal classe ya màbb seen kaw Cheikh Anta Diop say latiir ci leeral foofu ca Thiès. ñu ngi fii ci école a Diop ñu gënoon koo xam ci urbain un urbain garçon école bi daanaka mu ngi ci biir xolu Thiès ci ginnaaw gendarmerie bi école bi jamono yi de màggataay gi jéggi na doye lool ba tax élèves yi nekk ci kaaraange daanaka ay ay des ngir ubbi teg l'école bi loolee tax Ousseynou Ndiaye ñii jàng fii ci l'école bi fexe mu utey partenaire ngir jàppale l'école bi. école Idrissa Diop dafa nekk yëg-yëg si man boo xam ne daf yóbbu fu sori ma gis état école bi état classe yi fii xeer bii ngi seen ginnaaw di jooy parce que daf ma metti ñu bëri fii muy dëkk yi à côté muy waa Ngent fépp lañ doon jóge di jàng si cent pour e def lépp parce que réflexion école bi dafa diis école époque coloniale la dafay am tuile amatul par exemple tuile yi 1994 lañ ko changé fii la ma fekk may xoos tuile ku xoos tuile ñu jox la fukki dërëm xale koñ bi yëpp a ngi fi woon fa yàgg donc dafa laaj xaalis bu tey ndimbal la soxla mairie bi muy volonté état bi muy volonté nit citoyen bu nekk ku nekk si ñun ñi fi jaar ñëpp bu ñu amee volonté bi mën na mat ñu defaraat ko même changer tuile def dal moom la Moussa Diop doon wax jël ossature bi denc ko ñun moom la ñuy tuddee chantier solidaire mooy un don de nga dem fenn foo xam ne soxla nañu dara nga joxe sa bopp métti na nga dem laaj parents d'élèves yi ñuy participer pour defaraat école boo xam ne ça demande des centaines de millions te incha moom dinañ si jublu loolu tax ñu ubbi ab sa loxo ñu defaraat l'école bi ngir taxawu tout tànk yi jàng ak jàngale bi ca Touba bi yoon ak euh, université Cheikh Ahmadou Bamba mi sargal ndongo yi gën a xarañ ci euh, at mi ak euh, bu ñuy xayma téeméer boo jël bokkoon ci examen wala concours juróom ñett fukk yeeg ñaar euh, am nañ ci ndam ba tax euh, seen kilifa sëriñ moo Mamoor Mbàkke lay wuyóor gën na leen ñaax ñu góor góorlu laaj ak tontu dox digganteem ak Pape Balla Gaye ak Talla Samb ñu teewlu ba ci faculté bi ñu tudd al ulum diine sax man mosuma d'accord ci ak dirasat islamiyya dañ ne nañ ko bi ñu koy tuddee olomu diine état bi def na woon du nangu jàngu islam jàng bu ñu wax tudd noonu mu di ko reconnaître parce que du état rek la mais dafa am yeneen mbootaay yu yu bokk ci état yooyu ay CAMES ay ANAQ yooyu du yëfi état Sénégal du anak xëy de moo ko moom. kon yooyu am na baat yoo xam ne bu ñu ko ci tuddee man ci laa wax ne kon nañ ko tudd al ulum diin kooku moo gën a walaa ba sax ndax boo xasee aloolu ulum diin lépp ngi ci biir. ci loolu la état bi fexe ba reconnaître fii bi ñu ko moo ndaam boo ko xoolee moo mujj ubbi Dakar ak Bambey ci ba eh, ci école scientifique yooyu. ndax baat boobu lañ doon rayante ba ginnaaw bi léegi président ne nañ ko ci dugal kon ci lañ tudde sax euh, enseignement supérieur euh, recherche ak innovation boobu baat boobu ñun ñoo tax ñu dugal ko ci baccalauréat bi nii la bu deful woon test bii ndax boobu dañu daan taxaw fii naan leen bakk état diplôme yi du ko nangu bu ko defee ñenn ñi di mer naa def état diplôme kenn du ko woyofalal nit nit bu ko demeen for ko ci mbedd ma sax d'accord ak moom sa yoon nekku ci wante état tamit ni mu doon doxee mooy li mu diplôme bala nga ko mën a reconnaître ci dara da ngay ki ki koy reconnaître day xam lan nga ci def ñun fu ñu mës dem day xam lan moo nekk ci diplôme bi loo rek woon xale yi am baccalauréat bu Azhar parce que état bi dafay sélectionné ñi mu jël ñëpp ci ay baccalauréat yooyu am na ñoo xam ne amuñu ko te fekk am nañu niveau bu baax nañu xool ñun nañ leen mën a jàppale fii ndax fii tamit gis nga ko rek dafa dafa dafa dafa metti waaye nañ leen ñoom ñëpp nañ leen nañ leen nañ leen idaara ama ñi ngi ñaan sëñ Saliou ngeen sélectionné leen képp ko am baccalauréat boo xam ne du état te ami ko azar nañ leen ay ubbi buntu ji muy faculté yi nga xam ne am nañ ko muy dakaar muy ba mais rek il faut ñu def leen benn année prépare. bu ñu waxee ci jàng beek euh, jàngale bi dem ci tali bi dem beek euh, dikk beek euh, jafe-jafe transport yi am kuréel gii di mouvement des transport du Sénégal ne dañoo bëgg ñu woote ndaje mu matale woowee ko état généraux transport public ak ñoomin seen ñi bokk tali bi ñu waxtaanee ko ngir jubbanti lépp loo xam ni. ay rëq-rëq la ci Biram Diagne moom moo jiite kuréel googu ñu teewlu laaj tontu gi dox digganteem ak Abdoulaye Anne. jafe moom mooy yi fi Macky Sall bàyyi woon rek. mooy yoon yu xat coono bi montage yu yu yu yu jegeñe yu bari yi nga xam ne. wax dëgg yàlla boo leen waxee ñu la sécurité la. waaye ba léegi nekkagul loo xamante ni bii lu ñu mën a teg loxo la ñi nga xamante ni bii ñooy transporteurs yi ci Sénégal bu kenn yàq seen xel am na ñu naan Ousmane Sonko faale wuñu Ousmane Sonko soxlawuñu loolu du waxi kuy defar El Malick Ndiaye na te moom woo na état généraux woo Sénégal gépp amul xàjj ak seen waxul ni kii laa àndaloon ak kële laa àndal ñëpp loo woo bi ñu ñëwee ñu toog waxtaan bi ñu toogee waxtaan moom décidé wut ñun liñ juboo loolu lañ ko jox di xaar deuxième tour bi su jeexee di nga dégg ne état Sénégal def na jéego boo xam ne ci transport kenn mosu ko fee def coowul suuf liy faral di am ca zone des Niayes euh, rawatina Bambilor ak Diender euh, kuréel ya fa nekk daal di nañuy booloo njaboot yooyu ngir taxaw ci ñu bañati jalgati seeni àq ak yelleef ya nga xam ni jàpp nañ ni seen euh, suuf la ba tax nee ñu daje gu matale gu ñu am yeggee ci seen mbébét askan wi ñu teewlu Abdou Diouf Diagne ak Ahmad Amadou Bamba Samb teewee nañ ko point de presse boobu ñu teewlu. mbooloo mooy doole lu ni mel nag la fédération des collectifs de Bambilor ak Jander daal di dëggal ñoom nag ñuy wéy di ñaawlu seen suuf si nga xam ne nag ay borom doole dañuy wéy di si teg loxo ñuy sàkku sax nag ci kilifa yi ñu daal di wut ay saafara ci mbir mi nga xam ne indil na njaboot yu bëri ay jafe-jafe. lu dul li ñu gis mooy ñu créer ñu ay pots yoo xam ni nguur gi fi nekkoon mu remplacer leen ñoom ñoo ko muy lu mel ni pôle uv Déni lu mel ni pôle urbain Diacksao muy ñetti façon suuf yi nga xam ne am na ci commune u Bambilor ak tundu Jandeer pôle yooyu tey liñ ci gis mooy nit mooy jóge France nit mooy jóge Angola nit mooy jóge Guinée ñëw taxaw fekk doomu dëkk bi nga xam ni seen i maam avant indépendance ñu ngi fi doon bay xàll tey am fi ay délibération ñooñu la ñu nangu seeni suuf indi fi ay boo yoo xam ne amul benn bu ci am sesayoo de Bambilor nag ñuy faral di fa dégg coowal suuf lu bëri léeg-léeg sax nag ñu siy tuumaal ay homme d'affaires ci benn nag ci suñuy génn tuddoon nañu fa Serigne sekk ak njuumte la woon askanu mbey nak ki nga xam ne moom lañ doon tuumaal mooy ki nga xam ne mooy Serigne Sonye bu sekk Serigne Seck nag laalewul benn yoon ci mbiri suuf ci gox boobeelee addu Diouf Diagne ñu àddu jëmale ci wàllu politique ak élection palum député yi ñu dëgmal euh, journaliste bii di Mariam Selli Kane da ciy bokk moom moo jiite list coalition MSK dekkal yaakaar euh, bëgg indi ay euh, coppite ak jubbanti ci lu bëri lu rëq ci réew mi jàkkaarloo nag ay naataangoom taskati xibaar àggee leen mbébétam moom Mariam Selli ñu teewlu ay kàddoom. ñun dañoo yàgg toog di seetaan dañoo yàgg toog euh, di xool di dund ci biir système bi di dund ci biir dëkk bi di waxtaan ak ñi ñi di saafanteek ñoom waaye euh, danoo gis ne fi mu ne nii euh, régime yi day jàll rekk waaye dañuy xaw a niro su ñu demee ba yaakaar jib ba ñépp foog ne bi yoon ñépp dinañ déggoo dinañ songandoo dinañ xàccandoo dóorandoo suñu demee ba mu yàgg rekk ñu gis ay jàppanteeg xiiroo ngaayoo ñëwati génnee ñu ci loo xam ne li loolu mooy suñu yoon ndax ñun suñu yoon dañoo nekk ci yoon ba pare yàkkamti ñu pour ñu defaraat dëkk bi ñu defaraat réew mi ñu tabaxaat jikko yi ñu tabaxaat euh, jàng mi ñu fexe ba ñu ñi am jàmm. ay kàddu Mariam Selli Kane lañ leen doon dégtal noonu moom moo jiitee liste coalition MSK dekkal yaakaar ci élection législative yi ñu dëgmal beneen coalition gox bu bees ñoom joxe nañ seeni koppar. ca caisse de dépôt consignation ngir bokk ci élection yi gox bu bees seen tête de liste Ahmed jàlloo lay wuyoo ñu teewlu ay kàddoom gannaaw ba mu joxee koppar Cheikh ngoone Diop Amadou Ba ñoo taataan kàddu yi waa coalition gox yu bees ñoo ñëwoon fii tey déposer suñu costion pour élection législative yi am 17 novembre 2024 di wax ni gox yu bees gannaaw gu mu demee élection locale 2022 yóbbu si ay ndaw yu bëri am si juróomi maire am si 60 000 voix am si 302 conseils municipaux jóge foofu ànd ak askan bi si bëpp xeex bu ñu xeex muy euh, législative deux mille vingt deux muy jàppale ba changement bi am vingt quatre mars deux mille vingt quatre ñun waa gox yu bees yëpp ñoo jóg taxaw ànd si ak suñuy alliés ànd si ak ñu bees ñëpp ñëw bokk biir gox yu bees fas yéene dem assemblée nationale pour représenter fa askan bi représenter fa idée yi nga xamante ne. ñoom la askan bi bëgg ñu am représenté fa idée yi nga xamante ne askan bi ñoom la fal parce que askan bi ay idée lay tànn ne ñu ko porté ñoom lay fal ñu bëgg suñu demee assemblée nationale lépp lu ñu digoon askan bi ñu saytu ko ñu taxaw ba loolu am ñu bëgg suñu demee assemblée nationale lépp lu ñu digoon askan bi suñ ko naree fàtte ñu fàttali leen ko ngir mu am ñeneen ñu namm bokk ci élection yooyu ci coalition ànd beesal Sénégal ñoom dañoo jàpp ni dañuy bunduxatal seen njiit Abdoulaye Sylla euh, ba tax euh, jàpp nañ ni euh, duñ ci dellu ginnaaw benn yoon élection législative yooyu danañu bokk tey danañu fexe ba fal seen njiit fële ca ndar lañ ko waxee kenn ci ñoom yor seen kàddu aadama kan Diallo lay wuyoo laaj ak tontu dox digganteem ak Ousseynou Diop ñu teewlu. temps yëpp yéen a ngi dégg si ay rajo dañ ko woo dossier bi nga xam ne dañ koy tuumaal dara amu si parce que année bi ñu ko doon wax muy mille vingt boobu Macky Sall génn na ko réew mi depuis 2019 2020 2021 2022 ba presque fin 2022 début 2023 si la dellu si Sénégal toogoon na ay jamono yi nga xam ne ay agent fayu leen parce que Macky Sall moo ko dàq réew mi kooku noonu ni 2020 moom nañu jox avion privé mu yóbbu ay hors France mais loolu gars yi amul parce que dañu xam ni si un homme bi nga xam ni Sénégal gi yëpp a ngi bàbbeekoo di ñëw si moom ñu xam ni kii buñ ko téyewul wala buñ ko freinéwul mën na am dara si réew mi parce que Sénégal booy dem daañu xool nan na lay fakasale mais bii ça ne passera pas incha allah ñun nag waa Ndar daanu ànd ak moom guddi ak bëccëg fu mu ñu woo bu méttee ak fit daañu ànd ak moom mais ku koy laal balaa nga koy laal suñu suñu kaw ngay jàll te pour nga jàll suñu kaw. ñu leen di gërëm di leen sant ci teewlu bi loolu doon li gën a fës ci xibaaru marax yi ñu àggee leen ko ci njàppanal Habib Faye chef d'édition ànd ceek rédaction bi ci kilifteef régie bi Pierre Da Silva ak équipe bi mu àndal ñu leen gërëm di leen sant ñaanal leen fanaan jàmm jërë ngeen jëf